dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo diggante Abdoulaye wadd ak njiitu réew mi di président Macky Sall neexul ba neexul waaye seen diggante saa nu xëyee muy gën di yàqu bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay gii di réew mi quotidien maître Abdoulaye wadd mi fi nekkoon njiitu réewum Sénégal dafa nag loon ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Tine ñoom ñaar ñu doon waxtaan ci biir waxtaan bi nag si la ñu wax ci li nga xam ne mooy actualité jëm ci statut spécial mairie bu Ndakaaru maanaam tabb ki nekk maire bu Ndakaaru par décret loole nag Abdoulaye Wade wax ne Macky Sall xalaatu ko waaye nag bis bu ko jëfee ci réew mi boobaa nag ñëpp danañu gis ne dina wàccaat ci mbedd mi journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu Abdoulaye Wade ca biir waxtaan woowee daan nay wax ne Macky Sall loole nag bu ko jéemee ci réew mi dafay jaar ci ay néew doog a jàll maître Abdoulaye Tine ca waxtaan wa moom tim ci yéen kaay gii di réew mi quotidien mu daal di wax Abdoulaye Wade daal di koy xelal na ko jamono ji nag parti socialiste ak parti démocratique sénégalais dañoo war a joxante loxo daal di lëngoo ngir nag mën fee jëlee Macky Sall mi nga xam ne ay njaaxum rek la nekkee ci réew mi yéen a kaay la sa xëy nag ci ay calcul politique ci biir journal bi ñu fekk fa Khalifa Ababacar Sall ak noppem gi nga xam ne jamono ji jaaxal na ñu bëri soleil national xëy di ñu wax ne njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daat nay dem ca Mauritanie ngir ab visite boo xamante ni la ko wund nag bokk na ci rataxal diggante bi diggante Sénégal ak Mauritanie journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu jamono jooju nag am na ñeenti nappkat sénégalais yoo xam ne dañu leen a teg ca diwaanu Mauritanie ndax ñoom dañu doon napp ci anam boo xam ne bu jaarul yoon la journal bi di grand As mu ñu xamal lan ñu kërub taskatu xabaar gii di APS daan na yëngu ngir njombe loo xam ne daan na fay am ndax dañoo wax ne lu toll si juróom benn fukk ak juróom ci ay millions moo na mes ne menteñ ci taabalu Thierno Birahim Fall journal bi mu ñu xamal lan ñu xaalis boobe nag ana kan moo ko sàcc directeur général ba di Thierno Birahim Fall moom nag dafa tuumaal Bamba Kassé journal bi di waa Grand Place mu ñu xamal lan ñu moo taxit secrétaire général bu Synpics moom nag daat nay plainte ñetti plainte ki nga xamante ni mooy Thierno Birahim Fall yéen juróom fukk ak juróom million yooyu nag ci campagne présidentielle bi la woon dañu leen ko jàppale woon ni ab subvention yéen kaay di Les Échos mu ñu xamal naa ñu nag gouvernement bu Canada ñoom nag dafa mel ni dañoo jéppi Sénégal daan nañu yëkkati kàddu wax ne Sénégal daan nay am ak ñàkku kaaraange gu ci wàllu dem ak dikk bi teg si ne Sénégal jamono ji nag maanaam ma ngi ci ay menaces terroristes ñi nga xam ne ñooy terroristes yi daal maanaam dañoo tungulu réewum Sénégal ba pare ñoom waa Canada daal di wax seeni ñooñ na leen moytu leen bu baax a baax bërëb yu bari ci Ndakaaru ñoom daal di nañ ngi koy lima daan nay wax tamit lu jëm ci mbirum criminalité daan nay bëri lool ci réewum Sénégal loolee lépp nag gouvernement bu Canada ñoom ñoo ko daal di dànkaafu réewum Sénégal journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu ñu beneenub taalibe boo xamante ni daat nay faatu ca diwaanu Louga ci benn daara ñu njort ne sëriñu daara ba maanaam ka ko doon jàngal moo ko dóor ay fan lañ si teg mu daal di faatu loole nag la mbokki xale ba daal di jàppagoon xale ba nag Abibu Camara la tudd ay atam toll ci fukk ak ñeent journal bi mu ñu xamal nañu autopsie bi nag danañu ko daal amal mu ñu xamal ñu procureur moom nag daan na ci ubbi ab enquête journal bii di libération xëy daal di dikk ci Mohamed Cissé américain bi nga xam ne dañu ko rayoon fan yi ñu génn ca diwaanu Kaolack yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñoom lañ njort ne ñoo def googale giraawaali wala bokk nañ sa ñi nga xam ne ñoo def njombe ga kenn si ñoom nag dañoo gis deret ci yéreem journal bi nee na bi ñu ko laajee nag la mu xam xamle nag nee na daal benn mala la rayoon deret ji daal di takk si yéreem waaye nag journal bi nee na la nga xamante ni daal moom la analyse ba wane càmbar ga maanaam daal daal deretu nit la yéen kaay gi mu xamal naa ñu njaw ma ngay wéy di desu xambin ca wàllu woowu journal bi du Sud Quotidien dikk ci dialogue politique bi mu ñu xamal naa ñu nag lu jëm ci wàllum arrêté Ousmane Ngom article quatre-vingt code ak lu jëm ci wàllum autorisation marche yi loolee lépp nag général ñaam ma ngi ci wut ak déggoo tey ji am ndaje dana ca daal di am ci dialogue politique bi journal bi di Source A mu ñu xamal naa ñu nag li am ba des Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ne moo jiite dialogue national bi cabinet bi daal ñu baree bari ci ay nit la ñu daal di tabb ñu ànd ak moom di liggéey maanaam ay collaborateurs collaborateur am waaye nag li nga xam ne daal moo ca am bu ñu dajee bala ñoo dajewaat day yàgg lool la ko waral bu ñu dajee xaalis bu baree bari lay jur ndax kenn ku nekk maanaam bu signé wane ne teew na danañu ko jox lu toll ci cinq cent soixante-quinze mille yéenekaay gi di source a mu ñu xamal lan ñu moo taxit ñi ànd ak Famara Ibrahima Sagna bu ñu dajee bala ñoo dajewaat dafay yàgg loola yéenekaay gi di réew mi quotidien mu dikkal ñu si doomu maam Makhtar Gueye bi nga xam ne enquêteurs yi dañu ko yóbbu ca gynécologue ba xool ba xam dañu koo tëddee waaw wala déet yéenekaay gi di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu ba nga xam ne doon nañu ko amal ci mbir moomu daat nañu koy jeexal résultat yi tukkee nag na gynécologue bi tey jii la ñu koy daal di xaarandi Moustapha Diakhaté moom nag la mu xam le ne lieutenant Ndiasse Dioum dañu ko war a daal di dàq ndax kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko tegu ko fenn journal bii di la témoin mu ñu xamal naan ñoo Fatou Bintou Gueye daal doomu maam Makhtar Gueye bi bu ñu wax waxantee dëgg moom ak faram wi di wiise maanaam dañu doon Saint-Valentin journal bii di quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum train express régional AIBD aéroport international Blaise Diagne ak autoroute APS bi waa baat de Banque africaine de développement ñoom nag jamono ji ñoo ngi càmbar di xool ana plan Sénégal émergent bi ana lan moo ci dox ak lan moo ci doxul daal nañu yónni sax ay nit ñu ñëw ci Sénégal niki démb ngir nag daal di saytu lu ni mel yéen kaay gii di record mu xëy di ñu xamal Ligue des bi tey ji nag dina am mat yu rëy yoo xam ne dina am diggante Dortmund mi dalal Paris Saint-Germain ak Atlético Madrid mi dalal Liverpool journal mu ñu xamalaa ñu Liverpool bu Sadio Mané jamono ji nag ñoom ñoo ngi ci danger stade yéen kaay mu ñu xamalaan ñu ñaari choc ci huitième de finale lamb mu ñu xamal laan ni waa CNG ñoom nag bu ñu dàqee Yaxya Jóob Yékini maanaam bu mu bett kenn ndax Yaxya Jóob Yékini du teew ci ay ñoo beneen bi dafay ŋàññi saa su nekk ñi nga xam ne ñooy waa CNG